Bonjour chers internautes de Tactic TV, bienvenue dans votre premier numéro de votre émission Concon. Concon qui est une émission People, vous le savez bien, une émission qui cherchera tout simplement à valoriser tous qui sont dans le monde People. yaa xam nga nekk sportif nga nekk acteur actrice nga nekk kenn koo xam ne ku ñu ràññee la si sa domaine ñun waa Konkon dinañ ñëw ba sa buntu kër sëgg nuyu la waxtaan ak yow waxtaan ci sa carrière waxtaan ci say objectif waxtaan ci say ambition sur projet projets de vie tey nag boo xoolee fii ma nekk ñu ngi fii si Jacques mbaaw on est venu à la découverte d'un jeune talent d'un artiste auteur-compositeur qui a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de talent et qui fait fureur ces derniers temps du ma def lu dul fëgg ko mu ubbil ñu ñu découvrir loolu ak yéen kan mooy tey suñu invité du jour mi ngi fii ah tey gis nga yéen a ngi ko gisandoo suñu invité tey du jour mi ami du Boniface <laughs> di Boni Blaise le jeune frère du Bidéo bu bees tey nag moom moo nekk suñu invité du jour dañuy ànd ak moom on va passer la journée on va parler de tout et de rien et voilà on est contente d'être là vous la la rek lay jooy kay jege si ma bu yàlla man ma jël xalima dem bind ci jëm sori nga ma wéetatu ma ndax ci xol tey jege nga ma soo bëggee dangay gumba tëxlu ngay faral di jooy guddi mel ni ku ñu dóor sa xol diis xel mi jaxasoo doo bëgg lu dul gën a jege xale bi la lu wax ji bëri bëri nanga muñ seytaane ki dooleem pexem doy na waar bëggeel fees na del sama xol ay waaji le rootal yéegi yaay boroom waay tey ngeen doon ay waay jékki nekk benn jëmm du la sori waay mu jaral la jooy bay naaw ngeen teg seeni projet tey dox seeni waay tey ngeen doon ay waay jékki nekk benn jëmm du la sori waay ñi taxaw ne de fi am diggante bàyyam faam mbëggeel metti lool waay ko la yaa tax ma bind way gis la rek lay jooy kay jege si ma yàlla amul man ma jël xalima dem dindi ji la ci jëm sori ma wéetatuma ndax ci xol tey dafa bind nit bind malaaka bind jinne ba noppi joxoon nit ki ne ko yaay di sama xalifa dafa lu baax fonkal suuf si dal dimbale bul jaay ma sorul woon ba ni màgg naa ñi ko fogul woon ba ni màgg naa na na na na na Je m'inspire de ma vie quand je chante je chante pour enchanter xol li fi ne wax ci du ma ko raay gaañ ñi déglu leen ñu roy ci maam yi rafetalaat soppi jikko yi dalul ci la ba léegi ñu ngi well ba léegi ñu ngi ko doon tra ba ndax ma mën a bàyyi ñii di la fexel say waayu démb doon say noon tey dëgg yi la gën a jege léegi xamee naa leen ragalatuma ku ma mere maa ngi woy ak ma jot a bëgg high time to sonn naa ci nëbbatu bi jot na bless wër àdduna bi man sàkku naa am ñaanu yaay booy tax maa ngi woy barke barhaama ko ca kaw màgg naa boni màgg naa boni màgg naa boni màgg naa boni màgg naa boni màgg naa ñi ma sorul woon boni màgg naa ñi ko fogul woon boni màgg macha allah gis ngeen ko kon euh, moo koy waxee woon sànq tey ñu ngi fii euh, dalal ci suñu plateau Amidou Boniface plutôt Boni Bless sur son nom d'artiste gis ngeen li mu fi improvisé léegi c'est c'est macha allah. bon Boni maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi lay ziar Sista Penda maa ngi leen ziar waa tactique waaw ñu ngi leen di bëgg di leen ziar di rafetlu vraiment euh, du ma ne invitation bi sax mais le fait que ngeen ñëw fekk suñu fii incha allah vraiment dañ ko on est content quoi macha allah. <laughs> su ma la doon poser sama question bu njëkk c'est de savoir déjà buñ la doon wax lan nga ñuy tontu. parle-nous de toi loolu moom wax dëgg yàlla <laughs> c'est une question boo xamante ni nii euh, dafay xaw a métti pour man ma wax ci sama bopp et tout c'est c'est c'est un peu compliqué et tout bon man moom bon je suis une personne boo xamante ni nii vraiment quoi je suis. Euh, ku simple daa je suis simple quoi je suis pas compliqué comme personne nekkuma aussi nit koo xamante ni voilà dafa bëri ay karab karab dugg dugg je suis du genre posé xam nga calme xam nga genre boo xamante ne nii bëriwuma wax je suis un peu timide ak yooyu loolu lañ may wax quoi et tout tu vois globalement c'est un peu ça mais bon côté jikko wala ci biir moom moom je je pense que je dois laisser euh, peut-être les autres juger ni mu gars may percevoir gisee peut-être ñoom ñooy mën a xam exactement man Boniblaise, euh, Bonis, c'est le diminutif de mon prénom Boniface. Donc, Boniface, bi laa dagg jël Boni bi après ma collé ko ak Blaise bi nga xamante ni maa ngi ko jëlee ci anglais bu signifier God bless you. ko les Boni Blaise pour signifier que Boni par sa musique. par ses pensées par ses sensations que c'est c'est euh, esprit de partage la quoi boo xamante ni dama koy partager ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy liker sama musique di ma déglu quoi. d'accord on aimerait aussi savoir euh, musique bi ngay def kañ nga ko commencé. bon musique bi yàgg naa ko commencé yàgg naa ko fooye mën naa ne 2002 laa ko commencé depuis 2002 maa ngi ci foowantu quoi parce que loolu laay wax 2002 laa commencé jàngantu guitare mais bon comme que ci famille boo xamante ni nii musique la ñuy def ci la màggeetu donc boobu ba tey mën naa ne depuis bu may xale maa ngi musique mais 2002 la commencé jël forme du genre que laa commencé jàng guitare 2008 la gën a jël forme du genre que 2008 laa bokk ci benn concours boo xamante ne ni moom la ñu doon wax du woon concours sax mais bon c' était le dans les écoles c' était le l' éducation nationale ak en collaboration avec Yukonkum production et tout donc c' était le rap dans les écoles ci boobu euh, ni participé woon naa ci te tax sama carrière jël volet aussi parce que boobu laa commencé woon def yenn scènes yi xam nga boobu laa commencé jouer je euh, pour la première fois centre culturel français à l' époque tout donc c' ça loolu moom ma incité woon vraiment euh, foofu la sama musique commencé jël volet quoi. yaa ngi doon wax sànq ay concours on a vu que tu as fait des concours comme 100 pour 100 cover en plus tu as eu à faire The Voice Afrique francophone tu peux revenir sur ça. bon ça 100 pour cent cover euh, man personnellement bokku mun ci concours bi. parce que ki nga xamante ne ni moom moo initié woon affaire boobu daf ma waxoon ma ñëw participer rek parce que ñeneen ñi c'est c'est les autres qui étaient en compétition mais xam naa pour peut-être euh, euh, affaire bi gën a am empleur wala mu am peut-être yenn tête yooyu noonu ci la ma pour solliciter woon pour man ma def ci sama participation mais notons que j'étais pas je faisais pas moon ci concours bi man personnellement yaa ngi gis. Uh, The mooy concours bi nga xamante ne ni man mën naa ne moom mooy concours bu mu mës a def boo xamante ne nii euh, côté international la et tout bon c'était pas évident parce que tamit concours la boo xamante ni nii euh, yombul pour nit ki bokk ci surtout bu fekkee da nga nekk chanteur yombul pour nga bokk ci déjà les castings c'était euh, compliqué il y a des il y milliers de personnes yoo xam ne ñoom ñoo doon bokk ci casting bi et tout te Sénégal gi yëpp. parce que cinq personnes rek la ñuy choisir ñu représenter Sénégal yàlla def ñu bokk ci concours boobu noonu et ñu bokk ci ñi sélectionné pour ñu représenter Sénégal et dem nañ aussi on a eu beaucoup on a eu beaucoup de vraiment ça nous a permis aussi tey suñu musique bu demee ba toll fii wala bu ñu am vision bi ci suñu musique donc The Voice lu bëri la ci joué quoi parce que bu ñu demee dañu suñu esprit dafa gën ubbeeku par rapport ak musique par rapport ak esprit musical vraiment donc euh, loolu daal daf ñu dimbale daal lu bëri ci suñu wàllu musique tey jii di The Voice boobu noonu. parle de Boni fait allusion aussi à la musique traditionnelle. tu es accro au rétro c'est ce qu'on dit Pourquoi ce choix Bon, je dirais pas que c'est un choix, mais ma piquir la peut-être parce que euh, comme ni mu la wax dama nekk ak ay mag yoo xamante ne ni euh, ñoom ñoom seen musique loolu lay xaw a refléter tuuti entre guillemets bien que ci musique urbaine lañ commencé ñoom ils ont commencé par le rap et tout mais ñoom notons aussi que musique yi leen bercé wala musique yi nga xamante ne moo la doon inspiré temps yi gën a nekk xale musique traditionnelle la woon donc ñoom musique Baaba Maal xam nga ñoom musique peut-être Ismaël Lô à tu loolu moo doon xaw a bercé donc man bon foofu laa jëlee loolu noonu quoi parce que ñoom le fait que ñu doon déglu genre musique boobu man c'est ça qui moo inculqué comprendre nga donc te comme ni may faral di wax bu fekkee sénégalais nga loolu fekkee africain nga donc euh, je pense que au lieu que ngay dem di jëli feneen ci ay racines wala côté musical ngay ngay wut ay recherche feneen mieux vaut nga xool sa dëkk li nga xamante ne moom moo fi nekk quoi te ici on a des icônes comprendre que am na tamit ay rythmique yoo xamante ne dañ fi nekk ay rythmique séeréer joola si on fait des recherches loolu noonu vraiment mën nañ toj monde bi par rapport ak recherche ñu def bon c'est ça qui a fait que moi parce que bëgguma jël feneen quoi dama bëgg jël ci li ma am ma exploiter ko comme mën ko exporter ba nga xamante ni gars danañ ma mën a reconnaître quoi hmm. frères. Je rappelle que tu fais partie euh, des Benjamins, voilà, le Benjamin du bon, <laughs> des, Benjamin, <laughs> du groupe euh, Vidéo Tu as parlé d'eux. Mm. Qu'est-ce C'est quoi la base euh, waaw ñoom comme ni ma la rek ñoom seen musique laa màggee quoi loolu dama koy faral di wax sax et donc ñoom ñoo tax tey bu ma demee ba bëgg musique wala ma ci nekk nii ñoom la tu comprends parce que ci ñoom seen musique la màggee ñoom dañoo yàgg wéy macha allah depuis man bi may nekk xale ba tey ñoom ñi ngi ci comprendre que seen fans club yi ñu daan am seen premier concert yi a wéy quoi parce laa doon wéyantoog yooyu seen sound yi dama ko doon parkeriser et tout tu donc ñoom loolu lañ ma jox. def musique comment ils ont comment ils l'ont été d'accord dès le début. avec les parents et tout le monde. loolu c'est pas évident musique saa boo koy commencé gars yi duñ nangu <laughs> loolu duñ nangu et mais comme li la wax xam naa dañuy jàpp peut-être que que affaire booy la wala affaire de du mën sax dañuy jàpp ne lii baaxul parce que ñoom ci lañ nekk mais xam nga bu fekkee dañoo nekk ci dara ñu gis ne ça n'a pas été pour eux affaire yi yombutoon yaa ngi gis léegi du ñu bëgg yow foofu ñu jaar yow nga jaaraat fa quoi. maire bi sax teelul d'accord aussi mais euh, comme li may waxee rek musique étude dafa baax. xam nga ñoom dañuy jàpp tey dii bu fekkoon yu bëri dañuy jàpp tey bu fekkee da ngay def musique rek da ngay bàyyi sa jàng beeg yooyu noonu dem defi musique te après doo am ci looy jàpp te xam nga loolu baaxul déjà musique pour nga def ko sax il faut il faut que tu sois instruit aussi que nga am ay moyens aussi tey jii boo amul moyen boo duggee studio wala ay doo dem defi son c'est impossible tu boo amul moyen

bon aujourd'hui maa ngi def informatique de gestion euh, maa ngi je suis à la base et tout donc maa ngi ciy góorgóorlu te informatique kii di informatique di musique aussi parce que benn du dem du dem bàyyi moromam te dafa nekk yaari affaire yoo xamante ne nii voilà dañoo dañu dañu da nga leen mën a boole. tout à l'heure ñu ngi doon wax ci ay rétro on te laisse euh, le temps de nous proposer quelque chose nous par contre on est accro mm. <laughs> Parce que c'est un rétro qui, euh, qui inspire. Les propos sont forts et euh, on l'a suivi. On sait que tu t'en sors parfaitement bien. Donc, dañ lay may dañ lay bàyyi nga may ñu boobu parce que ñun boobu mooy suñu suñu suñu choix. <laughs> Waynde waynde waynde jeng Dudu baayu penda góor Malik baayu penda ngande nelaw ngir xalaat bëgg yàlla teel a réer ay waay gaañu li ko Tuesday moo dama toog ba diggi jox tëdd tëdd nelaw jee xel mi dem ci laaxira demoor ma jëng jeer xool fu ne demoor àdduna ko mën a jooy luy wéy la sama xel mi yedd ma sama xol bi jooy Malick baayu fen ngaan demoon yàlla buur bi la ñuy li dul jaas te yaatu moom fekk ñu ci jëf ju baax amina amina amin yal na nangu ñaan amina amin amina dama toog ba digi joon tëdd tëdd nelaw jee xel mi dem ci laaxira demoo dama toog ba digi tëdd tëdd nelaw jeex xel mi dem ci la <laughs> macha allah yal na yàlla wéral baat bi. son charisme en tout cas en dit long. Euh, spiritualité yi nga xam ne moom la ñuy ressentir envers euh, ton personnage. lan nga ñu si mën a wax. côté spirituel bi ñu xaw ci nekk tuuti euh, ngeen gis peut-être euh, ko bon ni ngeen ko gisee ko charisme bi ngay wax ak yooyu noonu et tout parce que man li may wax rek mënuma xam exactement mais quand man sama royukaay rek laay xool par rapport ak Cheikh Ibrahim ni muy defee par rapport ak ni muy waxee ak moom nu dafa ci loolu laay roy. nouveau titre cartonne et fait fureur en ce moment euh, Coco. D'où te sont venus euh, les nga def ba. ak inspiration parce que ça il faut dire que c'est en termes de parole inspiration boobu fan la dikkee. ok Coco moom c'est une chanson boo xamante ne ni dama ko bind te euh, voilà les mots sont vrais au fait maanaam je pas triché les mots xam nga parfois mën nga bind woy mbëggeel wala mbëy woy lu mu mën ci doon tu triches les mots maanaam tu tu as de créer. benn atmosphère boo xamante ni nit ki def ci nekk sans pour autant mu nekk yow loo xam ne yow da ko dund comprendre nga donc ngay créer mooy quoi mais man euh, paroles yi voilà parole dafa nekk loo xamante ni nii dafa dama ko dund en fait comprendre donc moo tax mu nekkoon lu automatique peut-être boo koy déglu aussi di nga gis ne les mots sont trop cohérents en fait à part la musique ñu ngi ci social ah loolu moom dafay ñëwaat à chaque fois parce que bu nekk social moom dafa nekk loo xamante ni nii ba c'est c'est lié euh, un projet boo xamante ni on avait on a on a initié ça bu tudd Sing for Kids chanté pour les enfants et tout donc dañ koy faral di def un peu partout ci hôpitaux yi comprendre donc euh, dem nañ ba on est partenaire avec l'hôpital l'hôpital Albert Royer donc euh, ci loolu lañ nekk et tout on pour les enfants xam nga yóbbu leen dons ñu am et tout bëgg nañ ko élargir nag xam nga def ko un peu partout ci hôpitaux yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Sénégal pourquoi pas ci Afrique. dégg ne euh, yaa ngi doon liggéey ak waa Gelongal est-ce que loolu mën nga ko confirmer wala. Gelongal waaw je travaille avec leurs frères. je travaille avec leur frère cadet Youssou maa koy ziar de passage moom moo moom moo réalisé clip Coco bi vraiment maa leen di félicité bu baax parce que ñoom ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi et te euh, clip bi Coco gis na daf ma naan macha allah les images sont très bien faites et tout et macha allah daal li li leen war ci loolu noonu def nañ ko quoi mais Gélaw Ngal voilà maa ngi leen di ziar aussi de passage ñoom Moussa ñoom Bàcc ak ñoom euh, Bamba ak yooyu noonu et tout parce jàpp nañ ci job bi te ñoom tamit ils ont de très bons rapports avec waa Bidéo samay grand frère donc loolu moo indi loolu moo indi link bi ba tey jii nii donc yàlla boole maak Youssou aussi ñuy def liggéey bu baax macha allah donc dama leen di gën a sant dama leen di gën a ñaanal yàlla rek macha l'émission tire à sa fin mm. mais avant ñuy tàggatoo bëggoon naa nga partager ak internautes du Tactic TV lan la Boni jot a dund benn phase wala benn période boo xam ne dans sa ça l'a marqué et jusqu'à am na lu muy def ci moom ba léegi. yii euh, sa dernière question bi sax na <laughs> la ilaha illallah li ma marqué loo xamante ne nii ça m'a marqué mais bon côté musique lay nekk ah. c'était à The Voice Afrique francophone et tout bon c'était durant les battles sax laay bëgg a wax et tout durant les battles dañ ma boole woon ak benn nit boo xamante ne nii euh, voilà quoi maa koy ziar sax de passage <laughs> xam nga il s'appelle Evans Euh, ba ñuy ba ñuy ba ñuy kii ba ñuy def ba ñuy def répétition yeeg yooyu noonu on était bien parce que waa ji bu ma gisee rek dafa ma kii dafa ma jege quoi dafa ñëw jegeyaan ak man mel ni sama frère la xam nga fu ma nekk dafa may woo ak yooyu noonu même dans les sax on tout le temps ensemble et tout comprendre baax li mu la wax on a fait des répétitions ensemble avec le coach et mais nag ce qui m'a fait très mal mooy que ba ñu demee ba sur scène ba nekk ci scène bi war a def battle te parce que battle bi lañu lay wax nekkul compétition la waaye du compétition maanaam da ngeen war a battle mais en même temps voilà comprendre noonu la war a demee man j'avais ça en tête au fait comprendre nga waa ji daal saay bañ ñeegee bañ nekk ci kaw scène bi waa ji il m'a pas du genre daf dama waroon euh, chanson la dama waroon woy ab moom dafa waroon woy après ma woy ñu def genre symbiose yooyu noonu saa yi daal jël sound bi ba ñu commencé tag accaparé ko da nga du bàyyi sound léegi donc man il m'a pas laissé chanter comprendre baax mi la wax bi ñoom du ñu mën comprendre dañuy foog ne man j'étais faible wala j'étais pas xam nga j'avais pas les performances nécessaires alors que ça il m'a berné dans la chanson te pourtant on avait fait de très bonnes répétitions et tout tu vois donc te le coach m'a éliminé par rapport à ça ça m'a fait très mal te boobu sax moom après il s'est excusé par rapport à ça parce que xamoon na ne lu mu def du yoon mais vraiment c'était quelque chose boo xamante ne nii non jooy naa ko sax quoi <laughs> jooy naa ko et donc loolu laa mën wax ne marqué na ma carrément carrément carrément mais bon mal nécessaire la te tey jii mu ma tollee sama musique tey jii nii ba am envie faaj ci tamit loolu yooyu yooyu mooy tax quoi. ay photo yoo xam ne jot nañ ko jot nañ ko jël daal ci fan la woon ak c'était à quelle occasion. première photo bi mooy bii. <laughs> la émission TMTC ci phase de promotion koko bi la woon bi vidéo bi génnee et tout donc euh, waaw photo bi foofu la woon. ñu dem suñu deuxième photo bi. <laughs> ndeysaan euh, waaw bu waaw Abba bi mu doon def temps mi nekkee 2STV et tout mag bi tamit mooy mooy bi juste bi ma jógee The Voice doon def phase de promo bi quoi boobu je pense que koko sax génnagutoon quoi waaw c' était là-bas. ñu xool ça c'était Sing for Kids euh, édition 2018 mooy édition ba lay passé si c'était à l'hôpital Albert Royer ci seen arbre Noël bi yaa ndeysaan ah ça c'était euh, li tournage kooku la woon ah. li mag nga abu nii ak leket bi nii ak ak <laughs> waaw lii si tournage photo tournage kooku la woon lii ndeysaan c'était très fort ah ça c'est Coco ça waaw lii lii phase shooting yi la woon quoi temps ñuy def shooting lii je pense que c'était euh, place du souvenir ba ñuy def shooting yi ci ci pour pour pour pour coco bi quoi. Yeah. ndeysaan ah ça c'est les grands frères <laughs> yow foo jëlee lii. <laughs> yeah lii. Euh, lii c'était à Norfois boobu dëggaguñ sax fii nii. waa photo bi mi ngi bëgg yàgg est-ce que deful ay 3 4 ans yooyu def na 3 4 ans. waaw si loolu il me le dit souvent mais nee naa leen nag maa leen maa gën a xees Matar quand même donc bu ma jaalu Matar. non waxuma ne maa ko daax bi maa ko. daaxuma <laughs> ko maa ko gën a xees quoi. man photo yi sax amatuma ko. ndeysaan ah ça c'était à The Voice Afrique francophone ça c'était euh, ma première prestation bàyyi yoon ndeysaan. <laughs> waa saa foo jëlee lii chat lii c'était euh, c'était aux Almadies yaakaar naa waaw bugguma wax turu resto bi balaa may def euh, pub mais c'était aux Almadies ci benn waaw ci anniversaire kii nii ci anniversaire ru Rabi sama benn sœur la et tout je pense que temps bi ci resto bi la doon liggéeyee li yàgg na de non. booy nga non fii kay saa yi mooy loolu. léegi ngeen wane sama bopp bi nii. <laughs> mais non loolu bu ko wax ci kaw lii sax dañ dañu war a kët dañu ko war a ci émission bi lii ça c' était à Norfoire avant qu'on vienne ici aussi ça c' est c' est avec mon manager Iso. maa koy ziar de passage di ziaral waa Diourbel. waaw ah, moom tamit nekk ni ko baax. waaw ah, waaw waaw ndeysaan c' était là-bas Boni en mode cap. ndeysaan. alors doy ngeen waan macha allah. dañ lay dañ lay bàyyi nga nga jox ñu sa dernier mot. Hmm? l' émission tire déjà à sa fin lan mooy sa dernier mot. waaw maa ngi leen di ziar vraiment comme ni ma commencé woon rek laay laay yeggalee maa ngi leen di ziar di leen bëgg rafetlu vraiment euh, invitation bi di rafetlu tamit le fait ngeen def déplacement bi et tout di ñaan yàlla tamit xam nga seen liggéey bi yàlla gën ko yëkkati yàlla gën ko barkel yàlla. xam leen fu nekk daal xam nga Tactic TV yegg foo xamante ne ni vraiment mooy loolu noonu et maa ngi ziar waa gàlla bi mère beeg xam nga sama sœur yeeg ñi ngi fi fekk yëpp maa ngi leen di ziar di leen bëggee bu baax a baax et euh, di ziar Iso. waa suñu manager mi ngi def liggéey bu colossal vraiment ziar waa bi euh, waa kii waa BF euh, ni ñu koy waxee waa BBC Boni Bless club ak Boni Bless staff aussi di leen ziar di leen bëggee di wax ne affaire yaa ngi ñëw et tout donc euh, dinañ def benn showcase sama anniversaire dinañ ko def xam naa yéen a am exclusivité sax instant yi ngeen ko am na <laughs> ci mois de juin bi incha allah le 28. je pense boo si je me trompe mooy deuxième euh, week après euh, la fête de la musique donc dinañ def suñu kii après xanaa dinañ leen revenir revenir par rapport ak lieu bi incha allah na ko gars xaar et donc euh, voilà quoi ñu ngi ci Bonil Bless ngi fii ñu ngi ci liggéey bi et tout donc macha allah te ku ñu bëgg suivre aussi na dem suñu page Bonil Bless musique affaire yaa ngi foofu noonu comme ça ñu cliquer sur. Boni, content Bonne continuation à toi. Et voilà, chers internautes, ceci met fin si euh, suñu émission Konkong gërëm Boni ak équipe bi fi nekk yëpp ñoom ñëpp maa leen di ziar di tàggatoo euh, ak kan aywa. xalaat téléphone gis la rek lay jooy kay jege si bu yàlla amul man ma jël dem bind ji jëm sori nga ma wéytatuma ndax ci xol tey jege nga ma dinaa la jëndal oto tabax château koko ne la dëkkal man de yéene na la lu ne dinaa la wéyal guddi yeetal la koko ba nga nelaw man de yéene na la lu ne duma la merloo duma la jooyloo yaay sama xarit man de yéene na la lu ne duma la merloo duma la jooyloo yaay sama xarit man de yéene na la lu ne dinaa la jëndal oto tabax château koko ne la dëkkal man de yéene na lu ne dinaa la wéyal yëngal guddi yeetal la koko ba nga nelaw kanda yéene na la lu ne duma la merloo duma la jooyloo yaay sama xarit man de yéene na lu ne duma la merloo duma la jooyloo yaay sama xarit tactique